assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd ak ci ñaan goo xam ne yaakaar nañ ne dina war a soxal ñu bari ñaan gi nag li ko tax a jóg mooy day yombalal nit ki li jafe woon di ko génne ci ay xat-xat ma ne ñaan gi li ko tax a jóg mooy day yombalal nit ki lu jafe woon di ko génne ci ay xat maanaam ay problème wala ay difficulté moo tax mu ne xiina yastaasi alayka al amr wa taajizu an il xuluul ilja ila man laa yujizuhu shay'un fi l wala fi lsama wa allahumma dabbir lii fa inna la uxsinu tadbir nee na su fekkee dafa am mbir mooy wut bëgg koo am lool waaye mu jafe la lool nga di ko sàkkoo fu ne munoo koo am nga di ko wute nu ne mute la wala nga nekk ci ay jafe-jafe maanaam ay difficulté wala ay problème bëgg ci génn génn ci tëla nga bëgg ci solution solution jafe la trop lool lool nee na yomb na ni nga ciy génne sa saafara daal sa solution yomb na ngay wéeru ci yàlla mi nga xam ne amul lenn lu ko ci kaw suuf amul lenn lu ko ci asamaan nga ñaan ko te soo koy ñaan na nga wax baat yi kon mbokk yi baat yi may bëgg a wax képp kuy wut dara mu jafe nga bëgg yàlla yombalal la ko na nga wax baat yi képp ku nekk ci ay jafe-jafe ay problème ay xat-xat ay difficulté bëgg yàlla génne la ca waxal baat yi may bëgg a wax baat yi mooy lan allahumma dabbir lii fa inni laa uxsinu tadbiir ma waxaat ko allahumma dabbir lii fa inni laa uxsinu tadbir ma waxaati ko ñetteelu yoon allahumma dabbir lii fa inni laa uxsinu tadbir ñaan gi nañ ko jàpp bu baax day yombal lu jafe day génne nit ki ci ay difficulté muy problème wala xat-xat wala jafe-jafe mbokk yi su ngeen bëggee am lu gën a yaatu ci waxtaan yeeg njariñ yeeg ñaan yeeg yëpp rek da ngeen di dem ca chaîne YouTube bale di yaatal xeltu yin ngeen abonné ca di seetaan vidéo ya di commenté di ndax bu dee ci TikTok bi dañuy tënk rek mais ca chaîne YouTube bay di yaatal xeltu yin fala yëf yi gën a yaatoo incha allahu rabbi jàngeen jëf salaam